wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit ñi mbokki téléspectateurs yi nga xam ne yéen a ngi ànd ak seen chaîne bi ngeen tàmmu muy jàmm ji info ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di am mbégte dellu ak yéen kom ni nga xamante ne noonu la ko jàmm ji info di ànd ak yéen ci ramadan yi ñu génn ak yi ñu nekk ak yi ñuy dëkk dëkkmal yàlla def ñu sant yàlla nag doon nañ ko ñaan mu may ñu pour ñu fekkee ren ñu fekkee ci gën ji rafeti fekkee ñu ngi koy sant waaye itam di ñaan mu dolli yàlla wax na ci alxuraan ne la in shakartum la azidannakum bu ngeen ma santee rek ma dolli leen ñu ngi ñaan ndollal googu yàlla nañ ci yëg suñu bopp ñun ñëpp am na ñu fi nekkoon daaw ak ñun xëj na ren nekkuñu fi duwul ne parce que dañu yaafus wala xëj na dañu amul kàttanal man féetee seen bopp wala pexe mais dafa fekk mu soob yàlla mu jëlee leen fi yóbbu leen ñu ngi ñaan yàlla fañ jëm yàlla na leen gënal fii ñu jóge ñi fi bàyyi ñu ngi ñaan yàlla itam yàlla na yàlla maye gudd fan gu ànd ak wér goo xamante ne Euh, lépp luñ fi jëfee dana fekk yàlla gërëmal ñu ko ba bés bu ñu fi yàlla jëlee itam ñu fekk leen ci aljanna yi gën a kowe bi jaahi sayyidil mursalin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi dellu siwaat ak yéen ci seen émission bi nga xam ne mooy ëttu nabi ëttu nabi nag sallallahu alayhi wa sallam li muy représenté dafa bëri ëttu yonent bi boo ko waxee mooy ne nga kër yonent bi tuna bi boo ko waxee mooy nee nga njabootu yonent bi ñaar yooyu nag dafa yaatu boo ne kër gi yaatu na boo ne njaboot gi yaatu na njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu la neexee nga tàmbalee ko ci ahl bayt rasul mooy ñi nga xamante ne mooy ñi yonent bi njabooteel boppam ci ay doomam nangu nañ mën nga yaatal itam ba ci ñi nga xam ne ñoom la yonent bi njaboote ci ay doomi magam ay doomi euh, nijaayam doomi bàjjenam demet demet mais itam ñooñu la ñuy tuddee alu bayti nabi sallallahu alayhi ba tey ci njabootu yonent bi di nga dem ba ci ñu ñuy tuddee saxaabatul kiram nga xam ne keroog bi lislaam di door dooree ci màkkatal mukarrama ak difficulté yi nga xam ne moom la lislaam juddoo tey yonent bi waxoon ko ne bada al islaamu gariban wa sa yaudu kama badaa gariban fa tuuba lil guraba yonentu sallallahu alayhi wa waxoon ne islaam dafa tàmbalee ci tumuranke mu ne te dana delluwaat ci tumuraanke ci finam noonu lay mujjee mu ne nag mais texeñeel na ñi nga xam ne ñoom la lislaam fekk ci tumuranke boobu ci mujjug jamono mu mel ne itam yonent bi njaboote na ba njaboote ñi nga xamante ne ñooy taabi'uun yi maanaam ñi nga xam ne bi lislaam tàmbalee bàyyi nañ seen yaay yi bàyyi nañ seen baay yi bàyyi nañ seen mag yi ñi bàyyi seeni jabar ñi bàyyi seeni jëkkër ñëw tuub dugg ci lislaam dinaa la ci tudd kenn rek ci ñi bàyyi woon seen jëkkër ya dugg ci lislaam waaye yàlla def itam kenn ci ñi nga xamee ne non seulement bàyyi nañ seen jëkkër yi sax mais bàyyi nañ seen yaay ak seen bàyyi parce que lu tax gëm nañ ni yonent bi doy na yaay yonent bi doy na baay yonent bi satisfaire na képp ku ànd ak moom ci bépp domaine ba gën ku duwut moom moo tax un jour sallallahu alayhi wa sallam dafa mus wax mu ne kenn ci yéen du gëm lu mooy ne dama ko gënal léppam dama ko daf ma bëgg ba ma gënal ko lépp Seydina Omar ibn al Khattab turandoo suma caméraman bi daal di ñëw ci moom ne ko ah man de xam naa ne bëgg naa la yaa ma gën a lu ne nag ba mu des sama bopp demaat ba yàgg mu dellusiwaat ne ko ah gis naa ne nag yaa ma gënal yow yonent bi bëgg naa la ba yaa ma gënal suma ndey yaa ma gënal suma baay yaa ma gënal sax sama bopp man yonent bi ne ko al aana ya Omar yaa ngi door a agsi nag mustafa amina yaayam xayrul anbiya lu waay jàpp na be